嗯。 bikum askanu Medina Baye mere nañu lool njiiti réew mi Macky Sall mi leen ñàkk jox seen gëdd ci gàmmu rem gi ba tax tegut fa tànkam l'évidence yéene kaay ñu ko xamal taalibe Baye ñesi mer ba futt la ñu def ne lu toll ni gàmmu Medina Baye international waa bitim réew yi di dagg avion ñëw seen président bi nekk fii dem ci këru diine yëpp te ñëwut Medina Baye naqari na leen ba ca kanam yàlla li leen gën a métti sax mooy ne moom Macky ci boppam moo leen ko digoon na fa ñëw mel ni ku naan leen ku mbaay bañ sàmbaay rasu ñun su fekkee makki yëgut ñu joxut gëdd mi dina bàyyi xamut dimension internationale bi bàyyi ñes am ba tax mu ñàkkal ñu fayda ñëwut ci gàmmu ren gi am na beneen sénégalais leader ku jug ku bëgg réewam moom ñëw na gàmmu si mi dina bàyyi xam ngeen kan la Ousmane Sonko njiital Pastef ba tax Baye Mbaye Ndeye Cissé jox na Ousmane Sonko gëlëm gu mag ba pare nag woo askanu mi dina bàyyi ñu jàppale nekk ci gannaaw Ousmane Sonko ndax pesum kanam borom a koy fajal boppam mi dina bàyyi dara la ko nguur gi defalut du ci gàmmu gi du laneen yëguñ ñu faalewuñ ñu wax rek ak ay dige comme joxuñu suñ cër nag mboolem fu taaliba bàyyi ñes nekk ñu jàppale Ousmane Sonko ndax bu dee Macky rek nguur gi rek lañ yaakaar Medina Baye moom du ma sa jot cëram faalawut ñu sax kàddug Baye Mbaye Ndeye Cissé li mi ngi ci Dakar Times nay leer wal fajiri yéen e ne gàmmu Medina Baye ga tamit xam na benn taalibe fa daanu ci ñaari étage mujj faatu ndey saam fekk si jamono jooju taalibe yëpp nga mere Macky ndax ñàkke jox gëdd Medina Baye deful fa dara ba dara boola jeex si du quotidien mel ni kuraan leen gis ngeen Macky doxalinam la xam doy na de gàttal lépp lu mu digge woon ne suñ ko ko falee mu dem ci réew mi tey la waalo gën a aay jàpp leen benn transhumant yi jógee ci parti dem ci parti Macky fa koy dooleel léegi ñaari mandat kenn du ko weesu ma ngay xalaat ñetteelu mandat gaa ñaa ngi koy wax de diggante mook Ablaye Wade ak yeneen ak yeneen faneen fu Macky demoon ci gàmmu gi Tiwaawoon Khalifa Ba yëkkati fa kaddu ñaawlu ak ngóor jigéen ne na Macky taxaw ngir mu jógee ci réew mi tey Imam Kanté rafetlu na kaddu Khalifa Ba ci turbine yéen a kaay waa ONG Jamra yi na xalifa yi dañoo a roy ci xalifa général des Tidiane wax ngir xeex wàllu ngóor jigéen seen kaddu yaa ngi ci vox populi les écueils yéen kaay na troisième mandat bi ñuy ruumandaat ci Macky lan moo ko ci mën a fekk moom Macky Babacar Diop njiital force démocratique bu Sénégal nee na gis nga nguur fa neex képp koñ fal président fa ngay mujj dof loo digg woon dootoo ko def noo mën a fexe ba ngooy ca nguur ga toog fa moom ngay def surtout réewu Afrique yi suñ président yi nag dañoo war a xam ne nguur askan wi moo koy joxe te xaar bañ jàpp sa loxo na la jógal ci bool bi loolu as gor moomut ko Dakar Times ne njiit réew Macky Sall ñu bëri si ñuy def déclaration patrimoine maanaam alal ji am la ñu wane ne moom lañ am bàyyi nañ lu ko gën a bëri fuuf ci ay appartement bitim réew ay kër bitim réew te OFNAC yi amuñu ay jumtuwaay ngir mën koo saytu seeni bu njaay jaxate daal ak ñoom àndal ñoom li leen ministre wax ci seen alal loolu rek lañ mën a càmbar de waaye lañ denc ko ëpp nay leer laneen lu leer ba yegg ca naan ñi ja mooy na njiit réew Macky Sall digoon na sénégalais yi jëlee fi xale yi yalwaan taxawaalu ci mbedd yi waaye fallaj ji daanu ba xalangu ndax tey la wàllu a aay gënal mbedd ndakaaru yi wala yeneen diiwaan yi xale yi yalwaan ak a ni yàlla juy taw foo toll seen tepp-tepp ya ci a jéem 4 ngir laaj réew mi ci turu PS Ibou Fall taskatu xibaar ci source ay yéen a kaay ne loolu mën a nekk la waaye bu 2024 passé dootul mën a samp ndënam de ndax fay fekk mu màgget xatam fay weesu war a laaj réew mi mën a dimbale ñu ñàkk maye xaalis jikkoom la moom Aminata te noonu la Macky def ba sénégalais yi fal ko kon tey moom rek moo mën a suqali PS laas yéen ne ay soxna nag Sénégal fa ñuy sàkku ñu jox ay poste waaye sëriñ bi tuyoo moo nar a remplacer Aïssata Tall Sall donte moom mii bi Aïssata demee ci Macky fa ko doon ñaawlu kon kay war ta jël poste député ba ki waratoon a dugg nag ci nguur gi mooy Aïssata Tall Sall moomu l'observateur nee na Macky lalal ndëggu sërëx piège la ndax fi mu nii mën a tutalaaj réew mi bu koy leer rek muy jàmmam de may leer la ne lu leer ba yegg ca naan ñi ja mooy ne Hissène Habré mi fi nekkoon njiit réew bi Tchad te ñu jàpp ko kaso tëj ko fii Sénégal jege na juróom benn at boo moytuwul mu ñàkk bakkanam ci suñ kaso gi ay vox populi moo ñu ko a tëdd kaso ci fàttali xolam bi jéemoon na fee taxaw crise cardiaque ci bi ñuy def procès bi vox populi moo ñu ko xamal la mu ñu xamal moom BBC télé Angleterre ba mooy ne xamul seen benn ndaw boo xam ne dem na wuy ji yoonu Sénégal ngir ñu déglu leen ci mbiru Petro-Tim bi moo ñu ko yeggee te déglu nag ca coow loola mooy njiital Petrosen waaye ba génnee fa daw taskatu xibaar da nangu ta wax Walfadjri njiital Télé Oil nag alxames lañ koy xaritam bi Le Soleil yéen a kaay ñu ko xamal li mu ñu xamal moom 24 heures mooy ne diggante ba 2019 terroriste yi liñ fi ci doomu aadama xam ngeen ñaata ëpp na téeméer ak juróom benn fukk ak juróom-ñaari junne ci àdduna bi juróom-ñetti fukki réew ak benn lañ fi song ñaar fukki ak juróom ya ay réewu Afrique lañ ba tax yéen a bi ne ay machines yu rey rey gu gaaw ta ci àdduna bi mooy terroriste yi tàggat yaram Sénégal Congo Sadio Mané Mbaye Niang ñëwaguñu fukki footballkat yi départ nag stade bu ngande bu fédération bi def mooy na drapeau Congo bi ñu waroon a def ci bii fañ koo jaawale def ca drapeau Congo Brazzaville ba nga xam ne footballuñu ak moom njuumte wala cuune xaw ma ban la ci la mu xam ba wax ñu ko moom critique yi ne kaay mooy am na ay xale yu jigéen elew jànguñu dara xamuñu dara ngir bëgg am ay notes yu baax ci seen devoir moo tax fa ñuy dragué cokkaas farantu ak seen far yi benn elew bu jigéen ci yéene kaay bi nee na man léeg-léeg sama professeur bi ma ngi xool ay gestes sama ni muy doxalee su ma paree wàccee ko ñu gérer ba mu baax devoir ma note yu waa ma li ngay def noonu de baaxut professeur ba ko nangu la muy def baaxut waaye yow élève bu jigéen bi yaay kii perte ndax faran toog sa professeur ngir am ay notes yu devoir léegi xaaral ba nga dem examen BFEM wala bac sa faru prof ba du la fa mën a jëriñ dara doo am examen nga perte dix perte la sec su ko defee nag xay xenu la